mbokkum taalibe yi seen mbokkum taalibe Ahmadou Dieng Tundodi moo leen di nuyu bu baax di leen ziare di leen ñaanal fan wu gudd ak ci barke Cheikh Modou Moustapha Al Karim barkeb sëñ Ahmadou Mbacké Tundodi di ziare sëñ Abdoulaat moom sëñ Habibu mi nga xam ne nii moo fi teewal kilifa yi suñ kilifa yëpp di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér xam naa di leen bàyyiloo xel ci li ñu dajale fii muy lan muy liggéey bi ñuy wax tuubaa ca kanam Touba ca kanam nag ndolleen la ne ko sëriñ mun Muntaxa waxe woon waaye dane ndolleen lu woyof la daal ne ñu ko yorit nañ ci def yitte fu ñu bëgg mu àgg fa dana fa àgg Touba ca kanam nag mooy da war a nekk ci li nga nekk ba noppi fab ko teg ko ci mooy fu ñuy wooteele daayirab sëriñ Touba bokk da nga caa war a bokk bokk ci sa daayirab sëriñ bokk ci sa fédération ba noppi yanu tubaa ca kanam ànd ak moom mbir mi nag liggéeyal sëriñ Touba nag dañoo toll foo xam ne nii nit ñi dañ cee war a gën a bàyyi xel ndax boo dee seetaan télévision bi di seetaan YouTube bi di seetaan nangam ak i nangam dañ laa bëgg xam loo ne kat daanaka àddee sax jërëtut joxe dama bëgg ñi xam ñun na sunu maam ya ànde woon ak sëriñ Touba. sëriñ tubaa daawul bind ci géew kenn seexal naa la dangay ngay nekk ak moom mu def ci yow loo xam ne nii ku la gis sopp la kon ñun li war a def mooy ku ñu gis xemmem la murit ku ko gis da ko war a xemmem di tàmbalee ci sëñ bi di yem ci sëñ bi ñi ngi ñaan nag ci barkeb sëñ Modou Moustapha képp koo xam ne teg nga fii sa tànk tey jii ci liggéey bii ñuy liggéeyal tuubaa ca kanam yàlla na ci yàlla defal xéewal yàlla la yàlla dool dolli wërsëg ci barkeb borom Touba yàlla mën na ko yàlla na ko def kon ñu njëkkanteeg waxtu wi xam ne kat biñ ñee dañuy def réunion ñu ne nañ xool fu gën a diggu doomu ñu jokkoog waa kër waa kër Serigne Touba yi féete Parma sëñ Cheikh dane fii de barabu Serigne Touba la kon ñun kat fas yéene dañoo dalal waa Touba ca kanam Touba ca kanam nag waxin la rek waaye ñëpp murit yëpp Touba ca kanam lañ bokk ndax li tax ma wax loolu mooy da ngay dégg ñanaan Touba ñoo ko war a defar ndeem ñoo ko war a defar nag juróom benni at ñiy woote di laaj ñaari million yi murit te mënoo gu ñoom téeméeri junniy murit loolu ab laaj la dama yaakaar ne murit yi matuñu ñaari million wala la sama jëwrin ma taal waxoon ne murit yi bari nañ bariwuñ doomi murit yi dañoo bari ñoo ëpp murit yi kon ñu jox sëñ Cheikh mu ubbi ci turu daayira sëriñ Touba bi ci njiit yi nga xam ne moom moo jiitee kër sëriñ Touba gi fii ci par Parma su ko defee nag ñu continuer liggéey bi sëñ Cheikh moom sëñ Cheikh Daaru Ndiaye sama soppe ba sëñ Bay Fallou yàlla na yàlla yokk leeram taasu ci barkeem bisimilah. yi nga xam ne nii jóge nañ fépp ci Italie ñëw fi ñuy jóge Rome jóge Janwa ñuy Turino Bergamo Brescia Veneto bi fépp te dara taxu leen a jóg lu dul liggéey bi te mun Muntaxa dafa waxoon ne rek ñi ko yor nañ doon ñu sawar fu ñu bëgg mu àgg fa dana fa kon yéen ñi yéen a sawar waaye nuyoo boobu bépp nag dañ koy teg ci loxol suñu jëwriñ ji nga xam ne mooy suñu kilifa di bàyyi ma Sàmba mu jàllale leen ko ci mbooleem coordinateur ak collecteur boo xam ne nekk yaa ngi fi di nuyu suñu mbokki soxna yi di leen jaajëfal bu baax di leen xamal ne ñoomit kenn desut ci ñoom liggéey bi ñoo ci man ndax ñoom fépp ña nga fa kon liñ leen di ñaanal rek yàlla nañ dund ñoom ba fekk njariñu njaboot gi ci barke Cheikh Mouhamadoul Moustapha al Karim barkeb sëñ Ahmed Mbacké tundoo di xam naa kon ñi daal di jox coordination bi ñenn ñi nga xam ne ni ñoo bokk ci ñi jiite liggéey bi ñu continuer liggéey bi kon xam naa jëwriñ sëñ Abdourahmane Diop ah nga mën a jege si. xam naa ñi daal di dugg nag ci collecteurs yi maanaam kenn ku nekk li nga indi woon xam naa soxna Fatou Gueye Ndoye maa ngi wax li ñu indi su fekkee ne jum naa ci nga nga ju nga gàgganti ma ndax yow fii ak doo mën a wax wax ju leer xam naa ñi bëgg bàyyi xel na képp ku fi teew. ñoom jëwri ni ñu ngi nii toog Alioune Badara siis kon nga di ko karmat li ñuy wax nag day wax joo xam ne ni dañoo bëgg ngeen dox ci ak soxla ak yitte ndax ñun ñiy dugg ci terrain bi di gis li ñuy gis kon ñooy am ay jàmbat ñëw di ko wax li Baye Serigne wax léegi ne état li ñoo ci raw jàmbaar lañu waaye soxna Ndeye Kébé daf ñoo jubbantiwaat ndax dane état li li li ñuy def kon war nañ koo romb waaw ndax sëñ kër sëñ Touba yi fi nekk ñi xam ne dayre sëriñ Touba yi ñi xam ne président yi ñi xam ne Touba ci kanam ñun dañ leen koo yoral rek waaye ñun liñ yor mënuñ cee boole dara kon daayira yi sëñ yi ñoo war a gàttandu Touba ci kanam yor carte yi di ko jaay ci biir daayira yi nga xam ne ñun boobaa duñ ci sonn ñun dañuy toog rek kon sëñ Alioune Badara Ciss ñun li nga xam ne nii moom lañ indi comme Lombardia bi ci njëkk mooy gis nañ ne groupe bi Touba ca kanam yi dañ koo bàyyi lu bari di topp diaspora bi loolu nag bàyyi sëriñ leeral na ko léegi ndax dana ak jubbanti lañ gën a bëgg ci liggéey bi nekk Touba ngir ñun ñëpp rek ñu gën a di yëkkateendoo di tegandoo ngir gën a déggoog réew Sénégal gën a déggoog fépp rek loolu man naa am day sooxe ci groupe yi nan la ñuy def ba di dundal groupe yi beneen bi mooy gis nañ na it Touba ca kanam léegi dafa amit maanaam yu baree bari ca kanam waaw mën ngaa dégg tundoo ca kanam man ngaa dégg daaru salaam ca kanam man ngaa dégg mët ca kanam man ngaa dégg sura ca kanam fu ne léegi loolu it nag dañoo bëggoon yéen jëwrin yi bu leen ci waxtaanee kilifa yi ndax damaa jàpp ne Touba ca kanam lépp lu nekk biir Touba rek Touba ca kanam la tuubaay daaru xudóos tuubaay guy mbind tuubaay tuubaay loolu it jàpp naa ne ñun waa Lombardia gis nañ ne ndax léeg-léeg laaj nit voilà ah, man kat maa ngay dagg ca tundoo di ca kanam wala maa ngay dagg ca daaru mi ca kanam wala maa ngay dagg ca na ca taxawu Madiana wala ànd te man li ma jàpp mooy ñaari milliards yi murid i moom bu ñu ko amoon ñun waxuma la Touba waaye fépp fu Sëriñ Touba mës a jaar sax dañ ko defar kon loolu it Alioune Badara ab ab ab ab eh, ci mbir yi la ak it yow it da nekk fii ku mel ne soxna fa soxna Ndeye Kebe léegi moom day dagg rek tubaa ca kanam ba noppi jiite ko waaye day gis membre boo xam ne dafay jàpp ne moom bu daggee mille euh, carte Touba ca kanamam bu gisee Ibrahima Sall wala Cheikh Cheikhouna njaay wala Baye Massamba wala Fatou Gueye Ndoye da nga dégg mu ne ko waaw Touba ca kanam dañuy maye ndox mu ne waaw mu ne ko man damaa bëggoon ñi may ma ndox kon dafay jàpp ne Cheikh daa daa jàpp ne Ibrahima Sall daa mën a woote direct ca Sall ba rek na yób ca Cées ba na yóbbul leen diw ndox. kon léegi signal Alioune Badara Ciss ñun dañoo bëggoon benn commission boo xam ne nii lu mel noonu bu lu ñuy signalé te rek ñun ci état li ñu jaaree ko ci yéen yéen kilifa yi bu ko defee nag yéen yéen ñu koy mën a àggaleel ca siège ba ndax ñoom Touba ci kanam moom doxut ci sañ-sañ maanaam sëñëb laatum sëñëb bi bu mais toog bu bëggee dara ca Touba ci kanam daa am fu mu koy jaar waaw kon nag ñu nit mënuñoo daal di ku ñu wax ñu ko rek ñu woote ñun duñ woote Sénégal dañ naa la jaaral fii waaye ñoom dañuy dégg ñaan laa yow kat yaay jëwriñ ji kon loolu it ñi bàyyi ñi ngeen ngeen jàpp ci baxum nan ngeen koy commission buy saytu loolu dana am solo Fatou Gueye Ndoye ak lan waaw gën a intégré xale yu ndaw yi ñu yor poste yi góor ñi ak jigéen ñi ñu yor poste yi bu baax a baax ndax yaaram faal ah bëgg fàllu li ma wax léegi rek gars yi Cheikhouna Ndiaye ñoom dañoo yenu ba diis ñu fexe ba gone yi dugg gone yi nag gone yi nag dafa am lu ma luñ bëgg ñu war koo bàyyi xel damay wax ne jàng xasida alxuraan a gën lépp xasida moom mooy waxi mooy waxi moo maanaam bu fekkoon ne kiraama am na bu fekkoon ne kiraama Seexul Xadim dañ naan kiraama mooy xasida waaye nag jàng xasida rek ak jàng alxuraan defarut jimaay njaareem defarut jimaay Touba defarut matlabul faw euh, masaalikul jinaan defarut université be faaw ñuy jàng alxuraan di jàng xasida ñu koy joxe. waaye dangay gis na léegi gone yi boo leen bëggee dugal ci liggéey bi buñ xas buñ kurélee ba jàng jës boog mu waaye boog mu xaddibaat daal di jugaat ndànk ak seen bubu yu rëy daal di yem dara moom duggeen loolu kon it gone yooyu nag dañ leen a war a intégré ñi ñëw ci liggéey bi xamal leen ne ndax fii mu ne dafa am loo xam ne dañ dañ koo xamul rek xamuñu ko ndax fi ne ñun suñ mag ñaar nañ son nañ toppe woon sëñ tubaa pas-pas ak pasteef la sëñ daam joorloo ba ko sëñ Modou Moustapha dee dama lay yónni yomal xiyaam dana ko ndax damay xëy baa damay tey jii sab sëriñ bu lay nee Ndakaaru nga ne ko yoruma paas mooy pas-pas lañ pas-pas boobee moom ñun dañoo bëgg te dëgg-dëgg xamuñu li li liñ bëgg waaw liñ am la sëñ Fallou ne woon liñ am kenn amu ko waaw waaye am ko te xamoo ko it nag daanaka mooy loolu kon ñu ngi déglu coordination yi képp kuy laaj kàddu mu tàllal loxoom lu ci jàmbat loo bëgg xam ak loo bëgg a leerlu ak loo bëgg ñu yokk ko ak loo bëgg ñu wàññi ko